أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم تسليم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رحمه الله رحمة واسعة وصلوات الله عليه وسلم mbokk yi ñi ngi dellu si waat ren ci saison 2 émission Shukran di ci sant yàlla bi mu ñu mayee ñu fekkeewaat ko ñi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi ñuy dugg muy shahru ramadan di weeru barke di weeru yërmande di weeru euh, defaru di weer woo xamante ne ñépp ñoo ko doom xaar muy doomu aadama yi muy rabu àll yi mu ñi féetewoo kaw suuf ak ñi féetewoo biir suuf muy ñi féetewoo tamit ci biir géej kenn nekkul woon toog di xalaat te sa xalaat lépp demul woon ci weer wu tedd wi nga xamante ne ci la yàlla ubbee buntu yërmande yépp ngir jaam yi mën a jëfandikoo yërmandeem ci fànn yépp ñi ngi leen ciy ndokkeel di leen ci balu àq di leen bal àq di ñaan yàlla ci weer wi mu nekk weeru ubbeeku weeru defaru weeru jéggal sunu bàkkaar yi ya ñu defoon yi ñu def ak yi ñuy waaj def yal bu ñu yàlla topp ci dara lu ñaaw ci barke sallallahu alayhi wa sallam moom Mouhamad Ibn Abdallah maa ngi leen di nag ñëw tey di di leen présenter cette saison 2 mu amaale ay innovation ndax dakaar mi di dafa fas yéene ginnaaw suma ubbee tey numéro bu njëkk bi. mi fas yéene ànd ak yéen ak yeneeni ustaas yu nekk ci biir réew mi te seeni xam-xam màcc jëm ci diine ñu bëgg ànd ak yéen ci wàllu barkeelu euh, ànd ak yéen ngeen taataan ci ñoom ginnaaw ñoom xam-xam ga ñu taataan ci ba ñu koy jàng loolu moo nar daw ci weeru koor bi yépp à travers Dakar Midi à travers cette émission Shukran ci saison 2 bi alhamdulillahi rabbil alamin bi ñu ci sunu borom tàbbalee maa ngi leen ci sant di leen gërëm ci na mu meloon daaw ci ànd ba ñu àndoon mu nekkoon ànd bu bu bu yéeme ànd fusion boo xamante ne la daan jot ci ay retour ci ay nit ñu amoon mbégte di ñu topp ci Shukran kéemaan la woon sunu borom ren nag yàlla def Dakar mi di indiwaat innovation yi yan nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim eggale ko ci suñu sago mu jeex ci alhamdulillahi rabbil alamin ci barke sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam mënuñu jeexal présentation wu Shukran saison 2 sans pour autant laal tuuti lu mel ni cof ci actualité su suñu réew nga xamante ne jamono ji xel yépp ñi ngi jaaxle nit ñi kenn ku ne mi ngi xool kan moo mën a wax ba jàmm dellusiwaat ci suñu réew jàmm bu faible nag moo am jamono ji bu fragile ndax nit ñi ñi ngi yaakaar ne li xewoon te du jikkoo sénégalais yaakaar nañu ne mën naa répété wu waat moo tax kenn ku ne mi ngi ànd ak dal ànd ak prudence ñuy xool ñan ñoo nar a fexe ba sooke jàmm ji ci réew mi mbokk yi damay waxtaan ak benn prêtre congolais mu wax ma lu am solo ci Rwanda jamono bi nga xamante ne diggante Hutu yi ak Tutsi yi jafe-jafe yi tàmbaleegul woon ba mu dem ci lu toll ci million de morts ñoom génocide boobu may wax mu ne dafa demoon di prêcher ci benn église bu nekkoon Rwanda jóge kongo Brazzaville nee na bi mu ñëwee mu seetlu ne ci biir église bi amoon na sax nit ñi tàmbalee di moytante mu xool ne tut tut tutsi yi ak utu yi dañu doon moytante ci biir saal bi su waxee jëme ci yàlla wax ju rëy su tutsi yi tàmbalee tàccu utu yi duñu tàccu et versa bi mu paree prêche mu dem seeti benn kilifa bu mag bu nekkoon ci jamono jooju ci Rwanda ne ko su fekkee ne woote wuñu jàmm jamono ji lu metti mi ngi waaj xew ci dëkk bi ndax affaire waaso dafa tàmbali dugg te danger la su tàmbalee di di nekk yu réew loolu nag mbokk yi war na tax ñu bari xalaat tey jii ban Sénégal lañu bëgg tabax ban Sénégal lañu soxla te weer wii ñu nekk muy weeru koor mooy weer wi gën a propice pour kenn ku nekk ci ñun ginnaaw bi nga dalee ginnaaw jullit bi ñu doon ginnaaw doomu aadama bi ñu doon kenn ku nekk ci ñun war naa taxaw tey taxaw def seetlu ne ban Sénégal lañu ñu bëgg tabax naka lañu ko war a tabaxee ñan ñoo ko war a tabax lépp mi ngi am war a am mbokk yi ci dal soo xoolee bërki démb gis naa Blé Goudé ginnaaw bi ñu ko acquitté moom ak Laurent bo mais seen waxtaan yépp mooy ñi ngi jéggalu ñi ngi bëgg jàmm wéy ci sunu réew ça fait vingt ans ñi ngi bëgg tabaxaat jàmm jooju mu tëleen est-ce que ñun donc dañu war a dem fekki leen ci yoon yu bon yooyu ñu jëloon ngir nësaxal jàmm ji am ci sunu réew déedéet li ñu war a def tey ji au-delà de tous les intérêts politiques intérêts sociaux intérêt économique suñu ay intérêt bopp yépp dañu ko war a teg ci suuf xool naka la ñuy def ba tabaxaat suñu réew te tabax bi yépp cëslaayam nekk jàmm loolu nag mbokk yi neex naa jàngale soo yëree naka la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam à travers son éloquence à travers son élégance à travers sa personnalité naka la def moom et son et sa intelligence très raffinée naka la def moom ba bi mu dellusee Makka mu jéggal noonu yépp wëlbatiku lal jàmm biir Makka développer son grand projet wesaare diine islam fépp ci kaw suuf jàmm jooju mu indi woon wax naa ko ci benn taalif ma ne ko sa del si màkka fay na naqar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale lii le tax ñu sopp la suñ borom ci alxuraanu karim mi ngi ñuy demander ñu cultiver jàmm ci ñun jàmm jooju suñ ko cultiver moo ñu yóbbu vers une résolution une seule moo ñuy permettre équation bu mun a présenter wu suñu kanam ñu wutal ko solution ndax ku am jàmm da ngay am paix intérieure da ngay am équilibre da ngay am conscience tranquille jàmm jooju moo lay permettre comme araignée buy tisser toile nga mun a tisser say objectif di jàmmarloo ak ñi nga xamante ne mooy ndëgg sërëx yi ak conscience bu tranquille avec une fine intelligence développer chemin bi nga xamante ne moom nga bëgg a tegu lépp ci foi ak dal dal bi jàmm moo ko moo ko jur pour nga mun a àgg atteindre tes objectifs pour c'est capital ba ca des mbokk yi mooy soo waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga wax façon nuyoom moom gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam su daan dox jëm ci yow soo ko séenee ba mu nuyu la li muy njëkk a def ci yow mooy dangay am mbégte ndax ñëw bi mu ñëw ci yow lépp jàmm la jëmm ji moom sallallahu alayhi wa sallam léppam jàmm la xibaar ji mu lay indil lépp jàmm la moom tam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba su tàggoo ak yow doo bëgg mu dem ndax daf lay apaiser def si yow paix intérieure boo amul woon ree ji daan naa ko wax ree ji moo dàq lem boo jëm di ko ñu koy toqantal mu jëm ci sa put moom gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam lii mbokk yi moom laa bëggoon échanger ak yéen ginnaaw bu ma leen nuyoo ginnaaw bu ñu ñaanee yàlla mu wesaare jàmm ci sunu réew lii laa indi woon ngir annoncer ces grands événements qui vont se produire dans Shukran dans cette saison 2 animée par de grands savants di ngeen ci gis dara ci fan yi incha allahu taala may tamit ah, chaque semaine dinaa fexe indi sama contribution moo humble contribution ci rekk di leen bégal ak di waxtaan ak yéen yal na yàlla nangu seeni koor ci barke gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam tey jii bokk yi la seul message que je dois lancer mooy ñu jéggalante si suñu biir mooy haine yi am si suñu diggante ñu fexe ba diddi ko mooy ni xoolante si suñu biir mel ni muus ak xaj ñu fexe ba dindi ko mbokk yi xam ne ñun ñëpp li ñu tënk mooy un peuple un but une foi mais am na leen lu ñu tënk encore mbokk yi mooy cofeel gi ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara mbokk yi dara warul tax ba leneen war a mun a ñëw nësaxal ko ndax kenn rek la ñu yaakaar ñun jullit yi mooy gën gi mbindéef sallallahu alayhi wa loolu defaat na leneen ci ñun bëgg gi ñu ko bëgg sopp gi ñu ko sopp fonk gi ñu ko fonk xeeñtu gi ñu koy xeeñtu tax na ba nu mun muñal ak dëkk-dëkk bu rafet ñeneen ñi nga xamante ne leneen mooy seen diine ci réew mi mu nekk jàmm ju rëy exemple bu ñu observé partout dans le monde loolu war naa tax mbokk yi ba benn yoon waratul xewaat li fi xewoon moo tax ñuy wax plus jamais ça di leen sant di leen gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu